alhamdulilahi rabbil aalamiin wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain mbokk yi ñu ngi sant sunu boroom subhanahu wa taala di ko ñaan mu julli ci sunu yonent ba muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk na luy nar nekk sunu jubluwaayu xudda tey mooy lu jëm li nga xam ne mooy seytaanay jinne yi ak seytaanay nit ñi nga xam ne ñoo tasaaroo tey ngiree bëgg a jullit ñi yoon ba nga xam ne moo leen jëme ci seen boroom xam leen ne sunu borom yàlla nee na seytaane day seen noon la jàpp leen ko def kam noonu ndax mi ngi woowaa parteem ngiree ñu bokk ca ñey nar a tabbi sawara yal na yàlla musal ñi ñuy bokk ci parti seytaan ñi ngi seede ne yàlla dong yeyoo ñu koy jaamu moom dong moo mën a musal ay jaamam ci seytaaneeg leneen lu dul loolu ñi ngi ñaan mu julli ci yeneen tamba yeneen tamba dëggaloon nam ko woon ci borom bi jàlla wa ala ngiree mucc ci bépp ay ay yéen mbokk jullit xam leen ne bokk na ci gëm gi ñu war a gëm suñu boroom mooy gëm la nga xam ne nii moom mooy ay dogalam xam ne sunu borom yàlla subhanahu wa taala nee na ñooñu gëm kumpa day ñooñu ñooy texe waaye bokk na ca nga gëm sunu borom yàlla mooy dogal ci jaamam lu ko neex na doon loolu neex na leen ñoom walla na doon loolu neexu leen loolu nag gannaaw ba ko jullit bi gëmee dara desewu ko lu dul mu daal di ci borom boobu làqu ci borom boobu mooy ci borom boobu ngiree yàlla musal ko ci ay bépp ay maadaama sunu borom yàlla xamal ne ko ni mboolem mbindaafan yépp buñ daje woon it mënuñu maa lor lu dul lu ma dogal kon kay mbir mi jeex na danaa jël mbir yépp delloo ko ci yàlla doonte ne mbokk bokk na loo xam ne musiba la bu ñu yàlla nattoo mooy li nga xam ne tey moo tasaaroo ci ay rajo ak télévision rajo yooyu ak i télévision lan mooy seen jubluwaay numéro un ndax mooy pour yee xeet bi delloo leen ci yàlla déedéet ñoom ñépp lay seen jubluwaay mooy taxawal nañ ko ngir jubluwaayu àdduna looloo tax ku nekk la ngay def ba nit ñi di jàpp sa rajo la ngay def ba nit ñi di seetaan sa télévision la ngay def ba attirer doomu aadama yi ndax da ngay xool ndax lii yàlla gërëm na ko gërëmu ko wallahi mbokk loolu amul ci ñun état bi nga xam ne moo waroon a contrôler loolu ndax état boobu la nga xam ne moom lañuy tëral ci ay yoon ñoo xam ne ñoo war a saytu rajo ak télévision yi ndax dañoo jël ay boromi xam-xam yu xam sharia ñu ne kaay leen ngeen saytu rajo ak télévision yi ba lu ci neexul yàlla bu mu ndax état bi tëral na loolu abadan la nga xamee ne moom lañu leen di contrôler safaanoo na leneen ak loolu loolu moo tax ba mbokk jullit suñu delloo ci rajo yeeg télévision yooyu dangay ngay gis ne amul benn rajo lu dul am na buxaaba bu fa boof amul benn télévision lu dul chaque semaine dana invité ñaar wala ñett ci ñoo xam ne dañuy woote ne ñoom day xam nañu kumpa ñoom day mën nañu régler mboolem problème boo xam ne dafa dal doomu aadama na doon problème yaram la na doon problème mu njàqare la na problème mu seetaane la mooy ñoo xam ne kone tout dara dara dara ump leen loolu nag ndokku tax na ba lu bari ci jullit ñi da gis ñooñu la ñuy déglu ñooñu la ñuy seetaan ñooñu ñoo leen tax ñuy génn ay sarax léegi ci ñooñu la ñu wékku di heure bu problème xewee ñu laaj ana lan lañ ci wax ba mbokk jullit gis ngeen xatta musiba boo xam ne ni dal nañu mooy la nga xamee ne sunu nawet bi ak jafe-jafe biñ ci am ci wàllu taw nga xam ni li waroon jullit ñi ñoom ñépp ñu toroxluwaat dellu ci yàlla jàll wa ala waaye li ngay gis dañ naan moom ana lan la saltige ya wax ana lan la seetkat yi wax ba am ci benn seetkat boo xamee ne nii ñi xam seetlu yépp waxuma xaram la def lu mu xaraame waaye mboolem ko xam nit xool ko xam ne kii ab dof la mi ngi digli na suñu àjjumay tey jii suñ bëggee nawet bu baax ne ku nekk génne sarax te bu ngoonee góor ñu sol yére jigéen jigéen ñu sol yére góor loolu mbokk da ngay gis rajo yi télévision yi dañ koy relayer di ko nekk nettali mu nekk benn information bu ñuy joxe mais gannaaw loolu ndax wax nañ ci luy position l'islam abadan déedéet loolee mbokk benn misaal la ci téeméeri misaal yi nga xam ne am na tey naka la lii di amee ci dëkk boo xam ne dañ ne yàlla mooy seen boroom naka la dëkk bu nay amee ci dëkk boo xam ne dañ ne lislaam moom la ñu dund naka lay amee ci dëkk boo xam ne dañ ne muhammad sallallahu alayhi wa sallam mooy seen reyukaay naka lay amee ci dëkk boo xam ne dañ ne alquranul karim moom mooy seen njiit mbokk loolu da ngay gis ne musiba munul paase loolu te yonent yàlla ba téeréem bu tedd ba ñoom ñépp lu ñu doon woo mooy nañu dellu ci yàlla xam ne la nga xamee ne mooy lorog njëriñ ci loxo yàlla la nekk amma doomu aadama yi dellu nañ ci buxaaba yooyu dellu nañ ci seetkat yooyu jox leen seen bopp uññil leen seeni secret wax leen seeni secret yi jëkkër seeni secret yi doom léegi mujj seen xol yépp wékku ci buxaaba yooyu luñ leen sant ñu def ko buñ leen reyloo ñu rey buñ leen bàyyiloo ñu bàyyi loolee nekk musiba boo xam ne musiba àdduna la avant musiba àllaaxira ay yow mbokk julit xamal na sa texe munta am lu dul nga dellu ci yàlla sa jàmmi àdduna mënul am lu dul dellu ci yàlla sunu borom yàlla ne na ñi nga xam ne dañ maa gëm ca bokkaale wuñu ma dara dinaa leen may kóolute may leen ak dal àdduna avant àllaaxira waaye sunu borom it noonu la ñu te la nga xamee ne shayatina yi jinne yi ak nit ñi am na ci ñoo xam ne ñi ngi jóg ngiree dox diggante nit ñi ak yàlla tasaare seen posen bu garaaw boobu te la nga xamee ne moom mooy shirk laga xam na mooy bidaa ya xam na moom mooy caaxaan ya te soo loolu sunu borom nee na amul benn yonent bu mas a woote lu dul utal naa ko ay noon ca seytaan nit ña ak seytaane jinne ya mbokk seytaan buñ ko waxee moom mooy jinne ya fettéerlu mooy yàlla di réeral nit loo looloo tax mu am ci nit ay seytaan am ci jinne ay seytaan kazalika jaalna li kulli nabiyin aduwan shayatin al ins wal jinn sunu boroom nag nee na seytaane jinne ñoom ñuy jël ay xabaar di ko jox seytaane nit ñi ngir ñu bëgg réeral doomu aadama yi léeg-léeg ñu wax benn mbir mbir ba am fekk na loolu natt la ci natt borom bi subhanahu wa taala waaye borom boobu leeral nañu ne iblis sunu noon la mu ne ay nit ñi bu leen jaar ci aw yoonam seen noon bu bir la dafa bëgg réeral leen ci yoonu yàlla mu ne ay doomu aadama yi gis nga seen baay aadama iblis moo ko xañoon jàmmi addunaam génne ko ci aljanna ngalla waay fexe leen ba bu mu leen réeral ni mu réerale seen bay aadama loolu moo tax ba aayo yooyu yépp mbokk sunu borom mi ngi ñu koy wax ngiree ñu fagaruwaat ngiree ñu góorgóorluwaat waaye borom bi ci mbaaxam ak yërmandeem leeral nañu mboole mi pexe yoo xam ne seytaana waroon na caa jaar ba yàqal ñu su dee na yow da ngaa delluwaat borom bi bokk na ci loolu yàq suñuy pas-pas ba ñu bokkaaleeg moom bokk na ci loolu tasaare njabar suñu biir bokk na ci loolu tasaare la xam na mooy noonoo suñu biir ak rayante waaye tasaare la nga xam ne mooy njaaloo gaag karte gaag musiba ya lii lépp suñu borom yàlla wax nañu ne min amali sheytaan ci pexey sheytaane la moytu leen ko su bëggee ngeen texe donte ne yàlla moo ñu gën a xam xam ne ne ñun ñu lompañ lañu par rapport ak sunu noon boobu nga xam ni ba ñuy bind sunu baay aadama mi ngi taxaw di seetaan par rapport ak équipe am boobu nga xam ne sunu borom nee na ñoom ñi ngi leen di gis te yéen mënu leen a leen gis mbokk ki lay gis te doo ko gis xeex ak moom jafe na loolu tax sunu borom yàlla ñi ay yoon yoo xam ne daan ko mën a jaar ba mucc ci moom suñu delloo ci sunna yeneen ci bi alayhi salaam mu woññi ay yoon yu ñuy jaar ba mën a mucc ci moom looloo tax képp koo xam ne bëgg naa mucc ci sheytaan shayatin al ins wal jinn na doon jinn lañu wala nit bal képp koo xam ne bëgg na mucc ci lépp luy lor àdduna ak alaxira ngalla waay yoon woo mooy ne dem jàng la nga xam ne mooy yooyu sunu borom yàlla tëral muy ay préventif yoo xam ne képp ku ko jël kenn du la mën a lor na doon loole nit la wala jinn la mbokk xamal ne li gën a màgg ci loolu ca la ci loolu mooy nga fexe ba wékk sa xol ci yàlla fexeel ba wéetal sa boroom xam ne yàlla mi la bindoon sa biiru yaay sàmm la foofee la nga yor lépp ci cër mu baaxe la ko fekkee la sa biiru yaay jox la ko te booba defaloo ko dara jamono bi nga toogee di ko rukkool ak a sujuut di ko wooral ak di ko yàlla moomu du la seetaan kon nga la waay sukkandikul ci yàlla làqul ci yàlla wékkul ci yàlla ci lépp loo xam ne ni ragal nga ko loolu moo tax ba mbokk jullit di baril auzu billahi min ashaytan rajim heure boo xamee ni yëg nga ak lomfañ ci sa xol yëg nga looy ragal yëg nga ak déngi-déngi ngal la waay àndal ak sa dal àndal ak sa fit dellul ci yàlla auzu billahi min ashaytan rajim sunu borom yàlla subhanahu wa taala nee na seytaane day pexe yi li muy bari bari bari amul benn pexe ci ñi nga xam ne dañoo gëm di wékku ca la nga xam ne mooy seen boroom ca it moom la ko jëkk a wax ne ko samay jaam yi ci man day amoo ci ñoom la nga xam ne mooy benn pexe lii mbokk da ngay gis ne bu dee ne am na ca mu wér ci yow nga la waay bul ragalati lenn lenn loo xam ne da koy ragal gannaaw ba nga jëlee say mbir wékk yàlla daa di koy delloo ci yàlla loolu moo tax kàddu gu rëy bu jullit di gànnaayoo mooy xasbuna allahu wa ni'mal wakiil yàlla day doy nañu ca doy na koo xam ne moom la ñuy wakkirloo loolu moo tax ba yow mi may dégg soo delloo kër ga béjjën bala baay caam joxoon ndomba ga la baay fekk joxoon bala baay njaay joxoon daldi leen yépp gas ba mu xoon nga daal di koy suul da di dellu ci yàlla jalla wa ala ne ko yàlla maa ngi nii ba may nekk sama biiru yaay maag yow rek la woon ba may ñëw àdduna maag yow rek la woon bis bu may dem bàmmeel maag yow rek lay doon yàlla bàyyi naa leneen lu dul yow sukk bàyyi naa sukkandiku wala yaakaar ci nit ak jinne ak malaaka yàlla dellu naa ci yow yàlla nag ma sàmm àdduna sàmm ma àllaaxira wallahi bu dëggoo ci yow yàlla sàmm la àdduna sàmm la àllaaxira gannaaw loolu mbokk jullit sa xel nag góor góorlu ca bëgg bëgg ngaa mucc góor góor lu ci ndigal yi ak tere yi lala sunu borom yàlla digal ma jëm koo jàng jëfe ko mënu goo ko booy génn del wax bismillah la hawla wala quwata illa billah loolu góor ak jigéen ñëpp mën nañ ko fooy génn sa kër del wax bismillah la hawla wala quwata illa billah mbokk jurit lii nga xamee ne nii mooy askar yi ñu yonent bi alayhi salaam won gis nañu ne moom la ak jurit war a mooy delluwaat ci yàlla ca xam ak kum mën a doon ab sëriñ lu mu màgg-màgg yeneen ci bi alayhi salaam li ñuy baax baax xam leen lañu séq ak ñoom mooy ñaanal leen yàlla waaye séq ñoom ñoom ci ñu sukkandiku ci ñoom ngiree yàlla indil ñu benn njëriñ wallahi am na ay fan yu néew li may bëgg-bëgg mu taw maa ngi ñaan yàlla bu mu taw lu waral loolu mooy ay nit ñi ngay génn nee nan dañuy ñaan taw nan la ñuy ñaan taw ndax yàlla la ñaan taw déedéet jërëjëfa diw jërëjëfa diw jërëjëfa diw ñu ne jubluwaay mooy ñaan taw ndax jàpp nañ ne kooku mbokk moom mooy indi lor wala njëriñ mbokk abadan nañu xam ne yonent bi gënoon ci mboolem mbindaa fan yi don dox ci kaw suuf sunu borom yàlla subhanahu wa taala nee na ko waxal demal na nga suratul araf aya 188 waxal gaa yi ne man day moo ma leen lor moomulu ma leen njëriñ bal déedéet damaa juum daf na ko waxal sa bopp yow mooy man moomu lu ma sama bopp lor moomu lu ma sama bopp njëriñ laa amliku li nafsi nafan wala darra su doon te ne xam naa kumpa kon danaa bari lu baax ca benn lor du ma laal te yonent bi alayhi salaam ay lor da daan tegalu ko ci kawam wax leen ne man dama dara lu dul ku leen di bégal ak di leen xupp ñeel xeet boo xam ne dañoo gëm kon mbokk yonent bi waxul ñu sukkandiku ci moom waxul ñu ñaan ko waxul ñu yaakaar ko bal def noo yebaloon ca ta nga na ne moom moom lor ak njëriñ muy sunu borom jalla wa ala mbokk borom bobu ndax moog sëriñu tariyaax bi nga xam ne bala ngaa dem ci moom da nga koy jox xaalis ñoo yem ndax bokk naa kii boof ca rajo communautaire yi nga xam ne da nga joxe deux mille cinq mille avant ngay dugg seen vocal abadan borom boobu mooy ki la jox cinq rendez-vous au minimum par jour juróomi rendez-vous bés bu nekk yow góor ak jigéen sunu borom jox na la ko ne la kaay ñaan ma ma may la kaay sukkandiku ci man loolu yaakaar naa yéen ñëpp xam ngeen ko mooy la nga xam ne mooy waxtu julli juróom ak loo ca mën a dolli ngalla waay dellu leen ci borom boobu problème bu ngeen am seen bakkan bu ngeen am seen njaboot bu ngeen am ci ragal shayatin al ins wal jinn dellu leen ci yàlla ngeen diis ko ko ca moytul ma la nga xamee ne moom mooy rajo yeeg télévision yi moytul ma ñooñu di yàq seen fas-fas ca xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daana wax ne képp ko denc benn seetkat wala xam xamkat mu wax la dara nga gëm ko kooku day weddi ne dañu wàcce ci yéen ci muhammad alayhi salaam gars yi lan lañ wàcce ci muhammad alayhi salaam mooy alquran waaye bokk na lu ga a nekk musiba am na koo xam ne alquran jooju di tere ak njabar moom alquran lay njabare far alquran googu di tere seet moom alquran lay seete far ba benn waaye am na ko may téléphone yi dama wax am na ko génn ci télévision bi nee na dafay jël la nga xam ne moom mooy bismillahi rahmaani rahim ak fatiha da koy tëral ci ay carré ne yow mi nga xam ne da nga am bopp bi metti jëlal paaka nga jam ci aaye bi bu seddul jamal bi bu seddul jamal bi balaa ñeentee sa bopp dina sedd ñu wane ko télévision nationale muy wër kanal international yëpp ci téerab yàlla boobu nga xam ne daa ñëwoon di jël di tere la nga xamee ne nii moom mooy ak njabar ak seet moo ko téerab yàlla bi xarf boo ci jàng ñu bindal la fukk tiyaaba kon ki nga xam ne daa dagg bismillah ki dagg bisima ga ka dagg baa ga ak siin ga ak nimara ga lépp loo jële ci téere yàlla bi di ko def ak njabar loolee mbokk kee nga xam ne daa jël ay béjjinam ak pettaawam la muy def li mu bon bon bon yow miy jëfandikoo téere bi yàlla bi yaa ko yées ngal la waaye bu leen leen gëm ñoom ñépp ay commerçant lañu loolee télévision di profité ci ñoom da ngay gis amul kenn ku ñu invité lu dul yaa ngi wane say numéro portable ci suuf ngiree kër bëgg a jokkoog yow jokkoog yow soo xisee ba jokkoog ñoom nag léegi nekk nga seenu prisonnier bu leen leen gëm bu leen leen seetaan fexe leen seen njaboot buñ leen gëm buñ leen seetaan dellu leen ca la nga xamee ne yàlla jàngal nañu ko sunna jàngal nañu ko kenn du ca fay dara jëfandikoo ko day yokk sa pas-pas day tax yàlla gërëm la dalay musal àdduna dalay musal la nga xamee ne moom mooy àllaaxira yal na yàlla saxalaat ñu ci sunu diine yal nañu musal ci ayu shayatina jinne ak ins yal na yàlla subhanahu wa taala jàngal ñu suñu diine wërsëgal ñu ñu jaar ca yal na ñu xamal lépp loo xam ne dañuy lor wërsëgal ñu moytu ko nawet bii yàlla yow dong yaa am kattanam yal na yàlla yónnee ñu nawetu barkeel ndox boo xam ne danañu jëriñ ca ba ñoo lor nawet boo xam ne danañu indil meññeent bu ñu yàlla di xéewal ba ci jëmi jamono yal na yàlla fayal ñu mboolemi guerre yi nga xam ne daa nekk tey ci kaw suuf na doon ca Gaza la wala Syrie la wala Irak la wala fu mu mën a doon yal na yàlla wàccewaat jàmm ci jullit ñi wàccewaat aay fii ci ci ci ci jullit ñi waaye yal na yàlla wàcce meram ak fayoom ca yéefari ya lor jullit ñi yal na yàlla wàcce ci ñoom loo xam ne dana leen doy sëkk ñuy xalaat dem di lor jullit ñi yal na yàlla aaral ñu ñu suñu njaboot yal na yàlla defal ñu mujj gu rafet defal ñu àjjana suñu wàccewaay wa sallallahu wa sallam ala nabiyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain